gambia banko jang so oy mu añi mu ne la soda sa da nga mer ni mo kumandi ko na konton wala a domoro la ka fa day ka war nañu sante yalla bu baaba gambia ko ñanta ala tentu la baake waaye war nañu change suñ jiko bari ñanta kata kuol fanan la fala deka bi toog du tax dëkk bi jóg de ka siidron kam buloo siti wota tinna la banko toog du tax dëkk bi dem kanam ka siidron wota banko yirwande su fekkee ne ñun ñëpp dañu bugg a seet para ñoo tilim nim bee pareta ko nte noola man pare ka noo ko nga seneya kon dëkk bi du dem kanam woto banko titaa ñaato wacha rahasu a ko waca rahasu me ce dokuwo man suma liggéey tam waca rahasu la te la doko fana mu wacha rahasu leti to bi ye mangi duga si poto poto duga na fu nekka a ko ñin to kono adunda poto ko kono dunda kankan kono dunda ñamol kono te suma ege ker fa ma sangu adu na fu dana so kono fa ye ku ya nga toog ne yow wacha rahasu buguloo ko ite si ko wacha rahasu man lafi wala da nga buga dem Europe i lafta taala Europe li gëna doy war sa mooy min ko fango bala fa warta ba ke mu <coughs> ñoo deport ikaminu deport ke murundina 98% sa ABC xamuñ ko 98% fan ABC makara dégguñ olof te Mansour mooy olof baa ne mu sa dëkk dégguloo ko nga dem Spain nga ne foofu ngaa liggéey eh, surwa mi yang koy la banko fan kay ma moy koy Spain do ko keje tubaab yi dofuñ foog ñu deport la tubaabol man ke tolé do fo e deport na loolu dañ ñu mun di deport dañ leen de wone TV pour nga ñan la te li nga liggéey si liggéey bu set ba nga am moto Europe soo ko liggéeyee fii nga nekk millionnaire. ado i ka doo ko min kɛ Europe fo ye moto so n'i y'a kɛ Gambie kɔnɔ i bɛ se millionnaire o. yéen a ngi dem. dem leen kóolóori bijulo ngeen seet tubaab yi ñoom tam ñu ngi ñëw toog fii alta kóolóori ni bijulo ale yaji ɓe tubaabool ɓe boo kan tubaabu duy gana sabati jang fo ngeen su fii su naxari on dina ñëw ni jang kole yaata nun tubaabool ɓe bola tubaabu duy gana sim fee jang dem leen si suñu marché bi ngeen seet naka la fa gan yi bëree alta na marché to ale yaji ɓe luntangol ɓe siyaari njan ñame gambien si lan ngay buga gambien kool mu ne la li ngeen buga pour jógee si euh, rafle an lafta ka bɔ fuwariyata yaa jame munu ko def de eh, president jame te nga toog nga foog ne di nga génn si eh, ñaaka yesi ko be bola fuwariya kono loolu kenn munu man mu ma leen a génne si ñaaka boobu moo bondinoo la fuwariya fii poverty ñaari façon moo am a ko fuwariya si fa fula le soto la poverty beyond somebody's control boo xam ne ah, la fuwariya mi yàlla ala faŋo le wo kan and self-inflicted poverty. Ani fuaria mi yalongo ifongole ya sabu ifamba. Yaonga wata high school. Iteji high school. amuloo liggéey iman dooku soto nga ne doo liggéey naa ko ikoytitaa la naaki dooku doo nappi ititaa baadaat doo jànga métier ititaa métier nii la yow Europe nga bëgg dem itelaftaa li nga demee Europe sax amuloo ko ibe paaso bu nekk nga toroxal sa parents yi pour am ko wolu isela wulu laalu toora nga foste bee ñu lépp ye forcé foy la wululale ta julota ñu ngi am na xam ye ni ku ya soto nga jël xaalis boobu fekkoo bandi boo xam ne gaal bu bon la am yewo kodo ta yajo bandiyol do la mi yalo ngo kulum kurum bale kulum kati bali bale babulu le jële ji nga dem be pare do ega wato do fay sita ite futala sa waajuri ila wululalu ñu ngi leb ye dontoro ke seen dem na i dingo tata aha boobu sax soo demee sax doo dem aljana ako wo hako fon isa da fayta lan moo ko jar mu ne jarata wala baadi because gis ngeen foreigner soo am ne ñu ngi ñëw fi amuñ dara ali yaajale ko luntawol jama ba kanaaje bulu kensen fente bulu ñi gën a ne a xaame mooy suma mbokki poli ako saka baadi fulol bu ndaw la ñoo starté guru ak mint bu daw mais da ngay pol bi kaay yow joko waniya sanje kelin diyala ɗon nga gis beno biti ñu ne kaw seelu e saje ɓe bitik ɗoje ko kaw seelu biti nga romba si biti gan yettamɓe kaw seelu ma he eh, janha bi quand ah. man ma ne ko ndi def mbaga sen koñ te table mbagale ah, léegi biti nga amee léegi say nakkum fa fele mu la waaw ndongo yi ko daane pôle bu ndaw bi non gonɗuno ka fay fulan sa leji la amedi na fay eh, électede sa boutique le babu give him another two years ako sanji fulan ni won ngi dawal benz ya inabe benabe benz so bori bente yangi bañ waccarahasu ani bi tebe ngeen bëgg la amu si alxuraan foo xam ne ñu ngi waa jaay o liggéey carpentry o liggéey métier dafa haram amma tara alquran o kono ka fo ko yew fiiro ke wallante capente dow ko ke walla métier dow ko a haramtale su fekkee ne nag da nga ni yaa daro yi mu moolete yi lamfutale jël ay kasu ah kasu olu fii dara ëpp ko xaalis kasuwo fɛn ma dan nafolo la ko la bi. wa hɔ n'ale ko dɛ. nka ɲin fɔlen dun juu na n k'a fɔ. nineteen ninety four. a ko biri nineteen ninety four. manala every year. nk'ale ko san o san. soji ye ten plants. ni san o san ne ye yiri ju tan ɲɔn fi. ten fruit trees. min y'a lɔn ko yiriden maa lɛmu. This year is 20 years now. You would have had 200 fruit trees. Eh, loolu mun naa laa génne si coono bu bëree bëri bëri. ñeneen dégg nañ ko ñeneen dégguñ ko. man du ma leen wax lu leen ne te ëllëg mu mu kasaare leen. ndongoy laa wax de. parce la a ko kaatu. ndongo yu bëri. fonde nongo jamalu ñu ngi dëkk ci seen kër papa ibe faasu ibe la fa fama la sole 1995 waxoon naa leen 1995 a falenu so do ne fii suma kër papa ni ke si so konkon ko jamu fayalete ëllëg xalaatal ne di nga dina am ku la ooyee papa. ah i ko sama moo bee te fanan kumandi la baaba la. kon. ako woto. doo toog xëjoo ak sa doom. i se si la foy ni dimma këri suma papa. kaa fo ko fa la suwo. sa doom ne la këri suma maam la. i din koy ko mama la korda. ñoo fi xëj ñoo fi em. doole kañanta ja. ëllëg suñ la oo papa. sama ni kumandi baaba la. sa doom tam war nañu la ne fii suma këri papa la. Ah, eh, loolu mooy yokkute. wala mu yiriwaati. waa ñu bëri dégguñ suma wax. bari moo jama maa la kumoo mooy o waato. waaye gis ngeen li ma wax yëpp gis ngeen ko. bari bii aka min bee fonu bii mbee ngaa jële. nañu wecci jiko. ako ngam daa jikool fale. alal bi nekk si suñu géej bi. ako naafuloo min bɛ na baa kono. nañ ko jëriñoo ñun Gambien ali Gambia dingolu nga mun a fanga la. alal bi nekk si suñ tool yi. naafulo min bɛ na kunkool to. nañ ko jëriñoo. ali nga mun a fanga la. Joshua. a Joshua. ma ñëw si góor yi. a naa to.